ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom ci dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci lu aju ci suñu wàllu diini rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na ay malaakaam yuy wër yaltamisuuna xilaqa zikr di xool fa ñu daje di fa tudd yàlla bokk na lu borom xam-xam yi di wax daje bi gën a màgg ci wàllu zikr mooy fa ñu daje di jàngale la xaraam ak la dagan ca loolu bokk na ci lii nga xam ne mooy fiq nga xam ni moom mooy leeral alquran ak sunna suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo jël nit ñi fawqa kulli zi ilmin alim ku nekk mu am lu mu la jagleel ci xam-xam looloo tax ba lii di alquran ak sunna mu am borom yi xam-xam yoo xam ne may na leen ci ak dégg ñooñi di ko leeral ña nga xam ni ñoo leen ca tane loolu moo waral téere yi ngeen dégg yépp ci wàllu fiq mi ngi doon topp téere bii di minhajul muslim yëg si woon ci li ñuy tudde jumlatul uqud ba war a jël tey an naw naw usaani li ñuy tudde sharikatul abdaan su dee ni da nga yol mool bu bees bi ñu ngi ci page trois cent quinze incha allah ñu ngi kon jël la nga xam ne mooy jumlatul uqud ci téere bi yegg si woon ci li ñuy tuddee annaw saani ci sharikatul abdaan bu dee gis nañ ko ci suñu téere mu ne وهي أن يشترك الإثنان موي مداد بولو نيار فأكثر وللو أب نيار فيما يكتسبانه بأبدانهما te la nga xam ne ñoo ngi koy faggu ci seen jëmm ya ka an yashtarika fi sanaati shay'in mu mel ne bu ñu booloo woon ci liggéey benn mbir aw qiyaatatihi wala ñaw ko aw xasli siyaab wala raxas ay yére wa naxwi dalik ak lu mel noonu wa ma yaxsilaani alayhi lépp loo xam ne dañ ko jotta loola fa huwa baynahuma ansaafa mu nekk seen diggante loo xam ne dañ koy séddoo ci ak yemoo aw ala ma tafaqa alayhi wala ci loo xam ne dañ caa dëppoo ñu ngi noonu mbokk kon day wone bunt bi suñu borom yàlla ubbi suñu borom mu ne wa taawanu ala al birri wa taqwa day leen jàppalante ci luy jur njëkk luy jur ragal yàlla suñu dimanche passé bokk na luñ jàngoon amul ñaar ñuy ànd jàppalente lu dul yàlla ñëw ñetteel leen suñ demee ba kenn war moroomam yàlla génn ci loxoom li valable ci ñaar mooy valable ci ñaar fukk mooy valable ci ñaari téeméer kon ndekete mbooloo njëriñ bu rëy la wala fi dañ naan mbooloo mooy doole loolu moo tax ba ndaw ñi su jub amoon créer ay GIE lu amoon solo la créer ay entreprise amoon solo la looloo tax mu ne lii nga xam ne mooy booloo ci wàllu jëmm mooy ay nit daje commencé ci ñaar ba fu ñu yem ne léegi daal ñun dañuy ànd di liggéey lu ñu gañi ñoo ko bokk wala ñu naa diw mooy chef lu ñu gañi moom mooy jël nangam ñi ci des jël nangam na doon loolee dafa am lu ñuy liggéey di ko yat wala yu ñuy tabax wala dañoo daje ne dañuy fuut wala dañoo daje ne dañuy ñaw ak liggéey bi nu mu mën a tëddee loolu lislaam gërëm la soo jëlaatee sa téere wala aslu fi jawaziha lay cosaan ci daganal loolu ma rawahu abu daawud la nga xam ne soloo na ko abu daawud min ann abdallah wa saadan wa amaaran ishtaraku yowma badr mooy kii di abdallah ak saad abdullah ibnu omar saad ibnu abi waqas amar ibnu yasir dañoo dëppoo woon bisu badr fi ma yaxsilaani alayhi min amwaali almushrikin te la nga xam ni daan ca jot ci alalu bokkaalekat yi fa lam yuji amaarun wa abdullah bi cheyin kii di amaar amul dara abdullah amul dara waaye wa jaa saadun bi asirayni saad moom indi ñaari jaam fa ashraka baynahuma ñaari prisonnier fa ashraka baynahum nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi boole leen ñoom ñaar ña amul dara ñëpp ca la saad indi fa kaana zalika qabla mashruiyati qismati alghanaim lii nag nekkoon na avant ñuy yoonal séddale ngañaay yi bokk na tegtal bi muy wone ni ay nit mën nañoo ànd ne nañ dem liggéey lépp lu ñu am ñu séddoo ko suñu biir islaam ba jihaad di doog a xew suñuy xeex ak yéeféer yi ba dàq leen jullit bu nekk loo jële ci yéeféer yaa ko moom bu dee danga koo jàppit sab jaam lay doon loolu mooy amoon loolu sax moo taxoon xare uhud musiba bu rëy am fa ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee daal di séddale armée bi am juróom fukki nit ñu mu teg ca kaw benn tund bu ñuy wax jabalu rubaat ñu nekk juste ci wetu jabalu uhud mu ne leen yéen lu mën a xew bu leen wàcc da ngeen toog suñ gannaaw sahaaba yi dem attaqué suñu boroom jàppale leen ñu dàq yéeféer bi ñu leen dàqee gaa yi nekkoon ca kaw montagne ba daal di ne eh gaa yaa ngay daw nañ daw waaye ndax ñun ñu am dara seen amir bi di Abdullah ibnu Jubayru ne leen hey yonent bi ne woon na bu ñu wàcc lu dul ma ñu jox ndigal waaye rek xam nga doomu aadama yi ak xër gi ñu xër ci àdduna suñu borom mu ne wa minkum man yuridu dunya rek gaa yu faxandoo ndekete booba jàmbaari ka mujj nekk jàmbaari l'islam di sayfullah wa Khalid ibn Walid bi mu ñëwee ba xool placement guerre bi xam na ni ni ñee nekk arrière plan ca kaw tund wi tànk ñi ngi foofu dana jafe ñu gañ leen mu beroog fas yi mu àndaloon naka mu gis gaa yi wàcce rek mu wër leen ndomba léegi jullit ñi montagne ba ñu yaakaaroon seen gaa yee fay nekk ngir défendre leen léegi nag ay fitt jóg a faaki jaay si jëm ci seen kaw jullit ñi tiit daw lan moo ko waraloon mooy loolu looloo tax ba dañu naan xare uhud islam moo fa gañi jullit ñee fa perte islam a gañi ndax la yàlla ko yonentam waxoon buñ ko defoon ñooy gañe waaye bañ juuyoog yàlla ak yonente bi gis nga fitna ñëw na ca fitna bu ñëwee du yem ci boppu borom mi ngi noonu ala kulli xaal xare nañ ca badr kii di abdullah ibnu omar saad ibn abi waqas amar ibn yasir ne kaay dem tey lépp lu ñu gañi ñu bokk ko ñu ne d'accord ba ñu demee ba xare ba jeex abdullah moom amul fa dara amar amul dara waaye saad jàpp na ñaari prisonnier ci yéeféer yi nga xam ngeen keroog jàpp nañ juróom ñaari fukki prisonnier bi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko lañu waxoon avant ñuy dem ci xeex ba mu ne kon kay njotu prisonnier yi ndax prisonnier di leen mujj jot ci xaalis loolee yéen ñi ki yoon yéen a koy séddoo loolu it kon day am ci wàllu association bu mu mën a doon su dee dañoo dëppoo loolu ci seen biir gannaaw ba nag la suñu borom yàlla dooga nag indi aaya nag ne lé- loolu bu mu amati heure bu ñu jihaatee ba pare lépp la ñuy boole armée bi yépp séddoo ko mi ngi noonu ah, su dee da ngaa yor sab téere mu ne wa ahkaamu haadihi sharika ana yan atte moo nekk ci société bi mel noonu bu ñu ko bëggoon taxawal hiya awalan أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها من المستأجر لهما mu ne képp kenn ci ñoom am na droit laaj la nga xam ne mooy fay jël ko ca ka nga xam ne moo leen di liggéeyloo ñoom ñépp ku ne am na droit fayeeku la nga xam ne mooy fay ga ñaareel ba in marida ahaduhuma su dee kenn ci ñoom daa feebar aw xaaba li uzrin wala mu absenté wu mu ñàkk fee nekk ngir ngant fa innama xasala alayhi ahaduhuma huwa baynahuma lépp loo xam ne kenn ko jot na ko ka ca des dañ cay bokk ñaare ngi nii bokk ñoo bokkum liggéey maçon la ñoom menuisier la ñoom jàpp nañ ne ñooy ànd lu ñu gañe ñoo koy bokk yàlla dogal ba ñuy liggéey kenn ci ñoom feebar wala am ngant boo xam ne nangul nañ ko ko ka ca des lam gañee bu ñëwee ñoo koy bokk ñetteel bi in taalat xaybatu ahadihima aw taalat muddata maradihi suñ demee nag ba muy gudd lool lii di faddu muy absence ñàkk a teewu kenn ca ñoom wala feebaram ba yàgg lool fa inna lissaxiixi an yuqiima maqaamahu ahadan wa ujratuhu min nasibi almarid aw alxaayib su boobaa ka nga xam ne moom daa wér te teew am na droit jël keneen muy taxaw liggéeyu kam bokkal société bi war a liggéey pay ga ñu koy jël ca wàllu kooku la ca des ñu jox ko ko mi ngi noonu ñeenteel bi in taazara xuduru ahadihima suñ demee ba mënatu la nekk teewaayu kenn ci ñoom fa inna lil axir fasqa sharika ka ca des am na droit daal di tas la nga xam ne mooy ànd ba bu ñu àndoon ci jàppalente loolu mbokk mooy ñaareel bi jàngoon nañu ñoo xam ne seen alal lañ boole di liggéey jàng nañu léegi ñiy boole seen jëmm di liggéey amuñu alal doole lañ yor di liggéey waaye ñetteelu façon société bi mooy ban annaw sadis mooy sharikatul wujuh ah ah waaw ah pourtant yaakaar naa ñu ngi koy bennal de ñu ngi koy bennal de waaw waaw mu ne kon annaw sadis mooy ñetteel bi mooy sharikatul wujuh la nga xam ne moom mooy société boo xam ne dañ koo def ci wàllu personnalité mooy seen personnalité la ñu utiliser seen daraja la ñu utiliser ngiree mën a taxawal loolu sharikatul wujuh société boo xam ne dafa tege ci daraja hiya an yashtarika isnan mooy mu booloo ñaar fa aksara wala lu ëpp ñaar fi shiraa'i silaa ci jënd benn marchandise bi jaahihima ca daraja yañ yor wa yubaayi'aaniha gannaaw ba ñu jaay ko wa ma yaxsilaani alayhi lépp loo xamee ni nii jot nañ ko ca min ribihin ci ci bénéfice fa huwa baynahuma loolee day nekk ci seen diggante wal xasaaratu bu perte amee wal xasaaratu in kaanat perte bu dee am na fa alayhima day nekk ci ñoom ñaar bi sawiya ñu yemoo ko ka ribhi comme bénéfice la lii mbokk da ngay gis ne mooy li ñuy tuddee genre apport moral boo xam ne nii day am boo xoolee ci yenn téere yi mi ngi def benn sharh ci suuf mu ci joxe benn misaal mu ne ki nga imaamu malik solo na ci motta ne ñaari doomu omar ibn al-khattab muy abdullah ibn omar ñu ngi noonu ak obaydallah dañoo jaar ci abu musa al-ash'ari fam nekkoon ca basra ci iraq biñ demee fekk abu musa am na alal jum waroon a yónnee madina ci amirul mu'minin bi ñoom abdullah ñëwee mu jël xaalis bi teg ko seen loxo léegi nag mu ne leen moo ne day bu leen neexoon comme fii am na marchandise bu ngeen ko jëndee bu ngeen demee madina am ci bénéfice xaalis bi man ngeen koo jënde marchandise su ngeen demee jaay la nga xam ne mooy wàllu kees bi ngeen delloo ko seen baay jël seen bénéfice biñ jëfee loolu ñëw effectivement jaay am ci bénéfice loolu bi mu amee Omar ne leen déedéet xam nga Omar ak tàngaayam moom ne leen déedéet xaalis beeg bénéfice yépp ci keesu islam gi la jëm ñu ne ko mais papa ñun xaalis bu pertoon ñun ñooy fay ah bu pertoon ñooy fay Omar insiste ñu ne ko waaw kon kay def ko léegi mu daara ba bon mooy état bi moo moom xaalis bi waaye ñun ñoo ñàkk bénéfice bi kon kay nañ ko séddoo gis nga Omar doog a d'accord ci loolu te loolu mbokk da ngay gis ne mooy li ñuy tuddee genre caution morale ngay fàttali suñu benn mbokk saako may wax ne lu mel ni USB benn banque bu fi nekkoon bari na lu bari ñu ko daan doon ay sëriñ na ci benn koo xam ne xaritam la woon benn directeur benn sëriñ ñëw di leb somme bu am solo mu ne ko mais ana say garantie mu ne ko ah man oo may garantie mu daal di koy booleeg benn kilifa gu mag ci gouvernement bi kooku ba ko directeur bu woowee mu ne ko non mais am na garantie morale kii kilifa la am na garantie morale waaye xaalis ba noonu la seeyee waaye kon doomu aadama yi bu doon tene ne tey nit ki wóolu nañ ko Cheikh Salih mii ñëw masal na ànd ak Bilal sëñ bi sa xar yi jox na ko ñun daañ ko jaay daañ la fay yoruñu benn xaalis waa ji wóorul leen ci seeni daraja jël xar yi jox leen ñoom ñu dem jaay ñoo fay loolu la ñuy tuddee sharikatul wudu mooy yow sa personnalité nga utiliser jël jaay bénéfice ba nga jël ko loolu lu mën a nekk la suñ ñëwee ci annaw orrabia la nga xam ne mooy ñeenteelu façon société bi l'islam nangu mooy sharikatul mufawada mooy jàppalante boo xam ne ku ne daa bàyyee sa moroom kaddu ku ne bàyyi na sa moroom kaddu mooy li tubaab tudde carte blanche mooy mu ne wa hiya awsau min sharikati al-aynaan moo gën a yaatu mbooloo bu ñu booloo teg ko ci xaalis wal wujuh wala teg ko ci ay daraja wal abdaan wala teg ko ci ay jëm iz hiya tashmaluhum ndax day ëmb loolu lépp wa tashmalul mudaaraba aydan day ëmb it li ñuy wax mudaaraba insha allah moom lañu war a jàng ci bind bi ci tege wa hiya an yufawwida kullun min sharikayni lil axir kulla tasarruful maali wa badani mu daa di bàyyee kenn ca ñoom ka ca des lépp luy jëflante ci wàllu alal ak wàllu jëmm min anwaa'i sharika ci lu aju ca wàllu sharika bu ko defee fa yabi'u kooku mooy jënd wa yashtari mooy jaay wa yudaarib moom mooy def mudaaraba dañ ko jàng insha allah wa yuwakkil moom mooy jox responsabilité ku ko neex wa yuxaasim mooy dagg sante ngir fayu wa yartahin moom mooy ka nga xam ne moom mooy jox ay tayle mooy tayle wa yusaafir bil maal moom mooy ànd ak alal ji di tukki wa yakunu ribhu baynahuma su boobaa nag alal ja day nekk seen diggante ala ma tafaqa alayhi ci loo xam ne dañ caa dëppoo wal xasaaratu bi xasbi nasibi kullin minhuma maali perte ga nekk ci cëru ku nekk la mu am ca alal ja loolu mooy lim tuddee sharikatul mufawada mooy da ngaa ñëw ci benn waay mu ne nekk masalan un commerçant nga ñëw jël alal jox ko société bi jël nga alal jox ko moom mooy liggéey ngeen dëppoo ci ne alal ji dañoo ko bokk léegi nag kii moo yor liggéey bi yépp décision yépp moo koy jël ñu xool nag lu ñuy dëppoo ci bénéfice ndax dañ koy séddoo wala kii day jël deux tiers kii jël un tiers luñ ca dëppoo rek loolee lu mën a nekk la loolee kon day wane ni nit ki mën ngaa joxe sa xaalis bokk ci société te yow bokkoo ci ñuy liggéey mi ngi noonu suñ delloo ci almadatu thaniya léegi génn na la nga xam ne mooy sharika ya mooy nga xam ne yéen ñëpp yéen a bokk mbir mi mu ñëw nag ci beneen façon jëflante jëflante boobu mooy li ñu tuddee fil mudaraba mudaraba taarifuha bu bu la ko doon xamal al mudaraba aw iqtiraat na doon dañ koy tuddee mudaraba ci jëflante mooy jàppalante ci liggéey wala leblante ci bor hiya an yu'tiya ahadun lil axar maala mooy kenn ci ñoom day jox ko ca des alal maaluman bu ñu xam yattajiru fiihi kookee moom dem di ca commerce wa an yakuna ribhu baynahuma su ko defee mu nekk bénéfice ba seen diggante ala mashtaratahu ca la nga xam ne ñoo ca sarto ñoom ñaar wal xasaaratu bu dee perte am na in kaanat bu dee perte ba in kaanat am na fa man fa min rasil maali faqat su boobaa ca bopp alal ja capital bi rek lay doon isil amilu yakfihi xasaaratu juhdihi ndax ka nga xam ne moo doon liggéey moom dana ko doy sëkk pertuk effort yam doon def muy liggéey bi mu doon def falam yukallaf xasaaratan uxra kenn du ko teg beneen perte beneen mbokk li ñuy tudde mudaraba liñ doon jàng sànq yépp day nekk sharika imma ngeen booloo ci seen jëmm wala ngeen booloo seen alal amma lii nag moom naka lay demee mooy kii am na alal kii moom ay pexe la am ñu dëppoo ci ni dama lay jox alal nga dem jënd ak jur di jaay dama lay jox alal ci bitig bu ma lay ubbil dama lay jox alal ci ngay voyager ñu dëppoo ci ne alal ji nii lay toll heure boo xamee ni nii waa ja yor liggéey ba am na bénéfice bénéfice ba ñu dëppoo ci luñ koy séddoo waaye bu perte amee perte ba ca alal ja lañ koy lañ koy lañ koy génnee ka doon liggéey moom perte effort am waa ji jox na ko un million ma ngay dem di liggéey di jënd ak a jaay bañ demee ba dig ba ñu war a jàpp ni mbir mi war naa baax ñu xool am nañ bénéfice bénéfice ba dañ koy séddoo un million ba ñu delloo ko borom alal ja léegi nag dem nañ perte nañu suñu perte dañuy xool perte ba nu mu toll la ca des ñu jox ko borom alal ba su ko defee borom alal bi moom perte lenn ci xaalisam ka nga xam ne moo doon liggéey moom perte aw ñaqam loolu la ñuy tuddee almudaraba doonte ne mbokk loolu buntu la boo xam ne aka mënoon a soqali suñu réew mi aka mënoon a soqali lool suñu réew mi ci daanaka boo demoon ñoom sañ ñu jàng microfinance da ngay xam ne lu bëri ci ay dëkk ay Malaisie ay dëkk asiatique lu ci bëri mooy microcrédit yooyu moo soqali seen dëkk mooy ndaw ñi ñu jël xaalis di leen dox ñu liggéey ñëw delloosi waaye nag ni ma ko waxoon ci darse bi passé ñun Sénégal moom dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala soppi suñuy jukk waaw suñu société moo baaxul jukkoom baaxul waaw waaye ak amoon solo tey ak bëri ay nit yoo xam ne seen xaalis bi ngi tëdd ci banque bi xamuñu luñ koy def ak bëri ay ndaw yu nekk bitim réew yor xaalis bi yónnee fii xamuñu luñ ciy def ay waaye boo amoon ndaw ni ñu mën a jàppalanteel xaalis boobu ñu jël ci di di liggéey bénéfice la ñu koy séddoo ñëpp a ciy bokk gën mais léegi tey ana kan ngay wóolu tey it jël lu mel ne ay 10 millions jox ko ne ko demee liggéey ana kan ngay wóolu ci loolu na doon sa mbokk la ak sa jegeñaale la ku mën a doon loolu bu ko defee da ngay gis buntu la bu yàlla ubbi woon boo xam ne yàqu gu rëy am na ci tey léegi mu ne kon yow mu yor sa téere mashruiyatiha mashruiyatuha ana fan la sharia tërale ni jëflante googu mën naa nekk almudarabatu mashruatun bi ijma'i sahab mboolem sahaaba yi dëppoo nañ ne jëfalin boobu la mën a nekkal wal aimma mboolem njiitu xam-xam yi jiitu woon na doon borom mazahib yi ak ne leen jiitu ñoom ñëpp dëppoo nañ ala jawaziha ci ne lu mën a nekk la wa qad kanat ma'mulan biha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa aqarraha ndax loolu dañ ko doon jëfee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi saxal loolu loolu mbokk da ngay xam différence am kon bokkul ak bor ki nga xam ne da nga koo jël lebal ko bor lanka lebal la lay fay daa gañ ak daa perte loolu yow sa yónni wu ci xanaa sax mbaax lebal nga ko muy liggéey perte na keewu da lay fay sab xaalis xanaa nga boo baaxee baal ko waaye daal da laa war a fay amma nag mu daara ba moom mooy yow da ngay jël ñu bokk liggéey man xaalis lay indi yow effort ngay indi su gañaay amee ñu bokk su perte amee ma perte sama xaalis nga perte sa ñaq mi ngi noonu kon loolu mën a nekkal ahkaamuha ana yan atte moo ca nekk ahkaamul mudaaraba hiya atte ye aju ci jëflante boobu ñu tudde mudaaraba mooy yii muy bëgg a wax ba ca jëkk moom mooy an takuna bayna muslimayni jaizi tasarruf fokk mu nekk ci diggante ñaari julit ñoo xam ne ku nekk sa jëflante lislaam da koy nangu te mooy majeur nga ànd nga ak sam xel wala ba's an takuna bayna muslimin wa kaafir dara nekkul nag mu nekk diggante julit ak yéeféer ida kaana rasul maal min al kaafir su dee yéeféer ba moo indi alal wal amalu min al muslim ki nga xam ne mooy jëf ja di jóge ci julit ba isil muslim la yaxsha ma'ahu riba julit kenn du ragal ci moom muy dem di jëflante riba wala maal maalul xaraam kenn du ragal ci moom alal ju araam mi ngi noonu kon day wax ne jëflante boobu it duñ ci xool rek ne bénéfice waaye ka ngay jox alal fa muy dugal alal ja di ci liggéey sa responsabilité da caa dugg fokk nga xam alal ji ci lu mu koy liggéey looloo tax mu ne fokk mu nekk diggante ñaari jullit ndax jullit bu xam diineem du jëflante ci riba te loolu it mbokk loolu démb la woon waaye malheureusement tubaab bi bi mu ñëwee ci ñun ni ñu taarale carte noonu lañ taarale taarale riba carte bu njëkk dañ daan dem ci àll ba gàddu seen i jees ak seen i yat di teg di gagné di reyante tey ñu ñëw taaral ko indi ci loterie nationale tuddoo ko PMI loto sport nangam nangam riba boobu it lan la woon bu njëkk mooy nit ku toog yor xaalisam rek ku ko leb mu tegal la ci bëri mais malheureusement bi ñu demee ba banque yi dugg ci tey ji da ngay gis nañu bëri ci ay ndawi julit jàpp nañ ne seen société mënutoo dox lu dul ñu def ay prêt bancaire loolee kon di xew tey bokkul la xewoon démb mu ne kon bu dee da ngay jëflante ak yéeféer lenn de mën naa nekk yéeféer jox la alal nga liggéey te it bokk na lu ñu suñu borom yàlla may jullit mën naa liggéey ak yéeféer mën naa liggéeyal yéeféer islaam nangu na loolu mooy nga jël yéeféer mu liggéeyal la nangu nit nga dem liggéeyal yéeféer jamono mas naa tar ci madina ali ibn abi talib ak kan mooy ali ibn abi talib dem ci benn toolu yahud di root mi ngi noonu waa ji di ko fay ay tàndarma tàndarma jëm ci jëlee ba mu ko indee jox ci yonent bi alayhi salaam ni bokk lekk loolu kon mën naa nekk man nga loolu bu amee kon liggéeyloo yéefa taxul ñuy wax loolu mën a nekk la am daan nag xëy na am na ci bëri yoo xam ne luy jëre bàyyi xel la mooy foo koy liggéeyloo jël ay yéefar di dugal sa kër loolu moom wóorut yu mel ne lu ñu jëre bàyyi xel nga jël mbindaanu julit di ko fay cinquante mille moo gën nga jël mbindaanum chrétien di ko fay trente mille mbokk kii nga xam ne bu julli jotee mu julli di wax laa ilaha illa muhammad rasulullah ndax dana yem ak koo xam ne ay signe de croix lay def sa biir kër xamoo lu muy jàngal sa njaboot sunu mbokk bi mi ngi nettali lu xaw a yéeme kenn koo xam ne daa amoon mbindaanum chrétien gis mbindaan ma sax nekku fa waaye xale yim yor bi ñuy añ ñu def signe de croix avant ñuy lekk xoolal musiba boobu su ko defee kon ku nekk war nga bàyyi xel jëflante ak yéeféer lu dagan la waaye nag nga dafay am ñu tudde ay garde fou fokk nga am ay limites yoo xam ne da nga koy limité ak ñoom yom yor sa téere mu ne kon ci ñaareel bi an yakuna rasul mal maaluman fokk bu ñuy defante jëflante boobu alal ji ñu xam temps la avant ñu koy commencé ndax kenn mënta xam bénéfice ci xamoo capital ñetteel bi an yuayyana nasibu alaamil min arribh fokk ñu daal di leeral lan mooy cëru kuy liggéey ci bénéfice bi fa in lam yuayyinaahu fa lil aamil ujratu amalihi su dee ne waxuñu ko woon ci njëlbeen waa ji liggéeyoon payugu méngoog jamono boobu rek lañ koy fay mooy payu jëfam lañ koy fay wali rabbil maal ribhu kullu su boobaa ka moomoon alal ja moo jël bénéfice ba yëpp amma in qaala waaye bu dee na ñoom dañ ne a ribhu baynana fa huwa munasafatun baynahuma bu dee bi ñuy tëral société bi dañ ne alal jaa ngi demee liggéey loo ci gañe ñu bokk su boobaa lum ca gaje dañ koy séddoo ci digg bi waaye it bu leen neexoon cëri la ko ay cër yu wuute avant ñu ciy dugg na doon kay liggéey mooy ëppale wala kay yor alal ji mooy ëppale ñeenteel bi in ixtalafa fi l juzi l mashrut hal huwa rubu aw nisf masalan suñ demoon ba wuute te cër ba nga xam ne dañ koo sartoo na doon loolu kaar la wala genn wàll masalan fa yaqulu fa fa fa fa fa fa fa yuqbalu ba boobaa dañuy nangu qawlu rabbil maal lii di waxi que moom alal ja ma yaminihi ak cër ak ak ak waat ga muy wax ay ñaare ngi def nañ benn muraba mudaraba ba ñëwee ñu gagné bénéfice waa ji doon liggéey naa da nga ne woon ñu séddoo ko ci digg bi borom alal ji na ko déedéet dama noon ceer bi ngay jël suñ demee ca attekat ba danaan borom alal ji waatal su waatee su nangoo waat ay waxam la ñuy jël ñu noonu su nangoo waat ay waxam la ñuy jël juróomeel bi laysa lil amil an yudaaraba fi maali rajulin axar ki nga xam ne dañ koo jox alal muy liggéey ci benn liggéey alal jooju amul droit jël alali keneen di liggéey ci même liggéey boobee mu ngi noonu ida kaana yadur bi maali awal su dee ne loolu day lor alal ju jëkk ja illa ida azina lahu saahibahu l awal xanaa lu dul mu jox ko ndigal waa waayam ju jëkk ja fi zalika ci loolu li tahrimi darari bayna al muslimin ndax ku ne xam ne ne ni lor dañ ko aramal diggante jullit yi te yittee ji waa ji bu la joxoon tey masalan un million ne la ubbil bitig keneen ñoo jox la un million nga jël alal yépp boole ci bitig bi loolu day gis nañ fitna lay juru kon loolu nekkul lu ñuy def suñu delloo ci juróom benneel bi mu ne la yuqassamu ribuhu ma daama al aqdu baqiyan la nga xam ne moom mooy séddoo bénéfice ba duñ ko def fi yéeg pas-pas ba ma ngay doon di sax illa ida radiya tarafaan bilqismati wattafaqa alayha alayha xanaa lu dul mu gërëm ñaari parti yépp ci ñu séddoo ñu dëppoo ca loolu mooy masalan tey ji waa ji jox nga ko un million muy liggéey dana ko demal liggéey demal jënd ay xar demal jënd dugub demal jënd nangam dañuy bàyyi ba la ngeen dëppoo woon ci liggéey pare su liggéey ba pare nag ñu xool lan moo fi des lan mooy bénéfice bi ñu doog a séddoo ci loolu boo leen neexoo nit tey masalan ñu ne ah déedéet tey jox naa la nga ubbi benn magasin benn boutique nga ni ubbi ko léegi chaque six mois ñu inventaire séddoo bénéfice bi daal di continuer loolu it mën naa nekk loolu it lu mën a nekk la ci wàllu mudaraba juróom ñaareel bi ra'sul maal yujbaru daiman min arribhi fala yustaxaqu fala yustaxiqu alaamil ra'sul maal li nga xam ne mooy bopp alal bi yujbaru daiman min arrib dañ koy mottalee toujours te bénéfice fala yastaxiqu alaamilu min arribhi shay'un shay'an illa ba'da jabri ra'sil maal kay liggéey du mën a am bénéfice mukk lu dul ni bopp alal ja dafa doon loo xam ne lu mat sëkk la kenn du mën a wax bénéfice lu dul fekke ne capital ba ah doon na loo xam ne nii lu mat sëkk la hada ma lam yuqassamu ribhu loolu nag dañ koy wax fii siddoowuñu la nga xam ne mooy bénéfice fa ñi tajara fii ganam su doon dañuy jaay jënd ak njaay ci wàllu ak jur fa rabiha ñu am bénéfice wa aqaza kullun minhuma nasiba ku nekk ci ñoom jël cëram min ribhi ci bénéfice ba summa tajara fi hab gannaaw mu jiram dugg ci commerce dugub aw kattaan wala ay tisi masalan fa xasira ñu perte min rasil maal ca bopp alal ja shay'an dara fal xasaaratu min rasil maal su boobaa pertaa nga ba day nekk ca capitalu alal ja walaysa ala al amili jabrahu mimma rabiha fi tijarati sabaqa kon day wax ne bu dee commerce bi benn commerce la liggéey nañ ko bam jeex mu am bénéfice bu ca am waaye bénéfice bi ba ñu xoolee kat génnul capital bi kon loolu lañ koy delloo ca capital bi rek mu nekk noonu mu ne waaye bu doon dañoo àndub liggéey mu joxe ci misaal dañoo àndoon liggéey dañuy jaay bëgg a jaay ay xar bëgg a jaay am pepp biñ jëndee xar yi jaay ko ñu daal di ci am bénéfice séddee bénéfice bi gannaaw bu ñu jëndi pepp jaay perte kenn du wax waa ji doon liggéey bénéfice ba nga am ca xar ba da nga koy indi déedéet maadaama ñaari mbir la yu bokkul kon kii dañ naan fii na perte ñaqam yow nga perte lenn ci sa capital mi ngi noonu bu ñu delloo ci juróom-ñetteel bi in mu ne in fasaxat in in in fasaxat al mudaaraba suñ demee ba mu fecceeku jëflante boobu ci mudaaraba wa baqiya ba'du al maal aradan lenn nag des ci alal ja doon marchandise mi ngi noonu mi ngi noonu aw bidaa aradan doon lépp loo xam ne dañ koy moom di di ko jëfandikoo wala bidaa mu nekk marchandise matériel lañ doon liggéey wala marchandise aw daynan inda ahadi wala boog mu am bor yoo xam ne dafa des fa talaba rabbul maal tandiidahu ka nga xamee ne nii moom mooy borom alal ji ne kat hee yow mi doon liggéey da nga dem ba lijjanti fayoo ko bor yooyu yépp aw bay al aradi li yasiira naqdan wala mu ne ko lii nga xamee ne nii moo fi des lépp di ak moomeelu marchandise da nga koy jaay ba mu nekk xaalis aw talaba irtijaa dayn wala mu daal di sant ci moom la nga xamee ne nii moom mooy delloo si bor yépp fa inna ala al amil al qiyam bi zalik ka doon liggéey dafa war a taxaw ci loolu mi ngi noonu su dee ne dañoo nekkoon di liggéey ñu ne woon dañuy def mudaraba ci diiru masalan un an un an bi jeex na des na fi ay bagage des na fi ay marchandise am na bor yu ñu fay yu ñu fayul ka nga xamee ne nii moom mooy liggéeykat ba moom mooy war a chargé wu ci loolu lépp mu doon taxaw ko ba delloo si ko teg ko ci la nga xamee ne nii mooy base capital ba lu tax mooy mudaaraba kenn du ko def ak i bagage mudaaraba ci xaalis rek la mën a doon kon ka nga xam ne moomu moon xaalis su ko nekkoon na ko ah fexeel ba lii ñu jaayu ko lépp ba mu delloo si nekk xaalis fayoo ko ma samay bor lu tax mooy loolu ci loolu la ko wóoloo woon mi ngi noonu loolu kon lu bu ko waxee nit borom ak liggéeykat bi dafa war a taxaw ci loolu na doon la cay taxaw ak am na ci bénéfice wala la cay taxaw amu ci bénéfice ndax loolu waru garam la mi ngi noonu suñu demee ci bind bu mujj yuqbalu qawlu al-aamil fi ma yadda'ihi min halaaki al-maal des na nangu waxi ka doon liggéey ca la mu woote woon a alal jakat daa yàqu aw aw aw xusraanihi wala perte goo xam ne da ko caa perte in lam tuqim bayyina tukazzibuhu fi ma idda'aahu su dee ne amul benn preuve buy wane ne day fen lépp lu mu wax ci ne alal ja yàqu na wala perte na dañ koy nangul ci loolu wa in idda'a al halak su woote woon ak alal jal yàqu na wa aqama bayyina ala zalik bayyinatan ala zalik mu indi preuve ci loolu su boobaa xalafa wa sudiqat da'waahu su boobaa day waat ñu nangulam doon woote gis nañu benn góor gu ñu dëkkaloon benn commerçant bu mag daf daan jox ay nit ñu koy yaral ak jur gars yi léegi la ñu dem ba ñëw ne ko ah góor gi day nag ba dee na wala wala xal ba dee na mu ne ñu ngi noonu fekk gars yi seen i tappal rek la ñuy def mu ne waa léegi képp koo xam ne waxatee noonu nag ba dee na na ma indil geenu nag ba au moins ma xam ne nag ba dee na donte ne loolu mënu ko caa jëlee ndax ci bëgg a tappale moom indi ab geen du dara dara ci moom waaye bari na lool mbokk ñoo xam ni dañuy jëflante ci wàllu sàmm jëflante ci wàllu tool da ngay gis ni ay musiba day dal ci seen kaw amoon nañ ci benn góor commerçant it lu mel noonu daan def genre mu daara ba booy mu daara ba yooyu gars yi bu ñu ñëwee rek indil ko lay immaa ñu ne ko jur ga dee na wala ñu ne ko tool ba dafa nangam mu ne waaw leen léegi daal musiba bu ñëw rek man sama alal lay dal lépp lu ma yàlla nar a teg yàlla na yàlla teg leen ko yaa ngi de waaye mbokk loolu tamit ala kulli xaal base ba ci lépp daal mooy ay jullit ñoo mën a siq loolu jullit heure booy jëflante ak sa mbokku jullit nga xam ne du moom moo lay xisaab waaye yowmul xisaab mi ngi ñëw en sëñ Bilal mi ngi noonu yowmul xisaab mi ngi ñëw ñu fàttali ñaanal suñu benn góor Dramane Diallo moo daan wax budul woon ak yowmul xisaab man danaa nekk milliardaire waaye nag kon mi ngi noonu képp koy mën a jëflanteel rawatina ki la jox alal nga la liggéeyal ndax ko moom mën naa yomb lool waaye nag yowmul xisaab mi ngi ñëw. loolee mbokk bu doon ñëpp bàyyi nañ ci xel wallahi ñëpp daañ mën a jiriñeenti ci suñ biir yal nañu yàlla booleelu gëm ñu ñëpp ñu gëm yomal xisaab yal nañu yàlla boole ñu wóor wërsëgal ñu suñu réew mi yàlla def ko réew mu wóor ndaw ñëpp yàlla may leen ci lu ñu jàpp ca barkeel ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ki nga xam ne dañ koo jox alal mu cey def mudaraba ndax am na droit faj ci la nga xam ne nii moom mooy aajoom naam am na droit faj ci aajoom bi charte mooy lépp loo xam ne faj na ci aajoom it mu bind ko heure boo xamee ni nii wàllu mudaaraba faase na moo xam ne alal ji kat lii la woon bénéfice bi lii la woon man maa ci lekkoon lii loolee mu ca lekk bu dee ne dafa méngoo ak la mu waroon a am te bénéfice ba su boobaa da ngay gis ne loolee nekkul ci lu ñu lu ñu koy bañal bu dee dafa dem ba nekk ci bénéfice bi amma bu dee ne lekk nga xam ne da cay lekk dafay nekk ci jëmmi capital ba avant ñuy dugg ndax di am bénéfice ak am ni bénéfice loolee nekkul du ci am droit lu tax loolu mooy day wàññi capital bi mu ngi leen masalan waa ji ñëw na joxoon na la un million ne la ñu dem jënd jënd ay xar nga ne texe trois cent mille yi def sa soxlay bopp dem jëfandikoo sept cent mille yi loolee kon nekkul mudaaraba waaye bu dee ne daal gis nañu ne yaa ngi jël xaalis bi di ci liggéey xam nga ne lii moom mi nga am bénéfice séddoogu leen la nga cay jël def ko bor bu ñëwee nga xam ne lii kat wóor na la ne day dugg sab cër loolee dara newu ci amma bu doon tere ne soxla boo xam ne avant loolu la fokk borom alal ji nga laaj ko ci ndigal mi ngi noonu ndax daf laa jox alal pour nga liggéey mi nga noonu loolu bokkul ak masalan ki ñëwoon dénk borom bitig bi alal nga xam ne moom wóor na ko ni waa ji fa muy soxlaa alalam moom su ñëwee danaa ko jox alalam loolee bu doonte ne am na marchandise bu mu ci jënd jëfandikoo yooyu te wóor na ko ne bu ñëw mu jox ko alalam heure bu ko soxlaa dana ko jox loolee nekkul lu ñuy tere mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
comme dañ ko ni papa xaalis bi dañu ko jox bu réeroon dañ bu réeroon nag dañ koy fay may laaj ki nga xam ne dafa laa jox xaalis nga la joxal ma ko bii nga sàmm ko na nga sàmmee daal du ko ci benn càggante bu wéeree da nga koy fay wala doo ko fay.
ki nga xam ne dalaa jox xaalis na la joxal ma diw ndax loolu bu réeree da nga koy fay wa bu dee ne loolu wàllu atte la lay tegu su dee ne dafa dem ci attekat bi mooy ñu xam ne kat kii responsabilité yiñ ko joxoon def na ca kemtalal kattanam ay nit ñoo ko ëpp doole jël ko wala yu demee noonu lu demee noonu moom da ngay gis ne attekat bi mën naa décider ne kii kat amu ci responsabilité amma ñëw ne dafa réer rek loolu il faut mu am preuve te loolu preuve boobu it des fois day nekk loo xamee ne ni du neex a nangu waaye daal nañu xam ne sa digganteeg sa borom moom amoo ci bàkkaar waaye nag sa digganteeg sa morom bu nanguwul ni xaalis bi dafa réer da nga may fay su boobaa da nga koy fay loolu ñuy wax ci problème Omar nag xa doomi Omar yi bokkul ak ki ñu dénk ki ñu yóbbante xaalis ñoom li tax ñu ne ko bu xaalis bi réeroon dañ koy dañ bu bu perte amoon dañ koy fay ñoom ñoo jël xaalis bi dugal ko ci marché bi loolu bokkul ak xaalis bu ñu la jox mu mu réer wala ñu sàcc ko ñoom dañ ne ñun ñoo jël xaalis bi dugal ci marchandise bu doon dañoo perte dañuy fay perte bi kon kay bu ñu gañee bàyyil ñu jël ngañaay bi loolu kon ci wàllu googu lay adu wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw naam naam mi ngi noonu waaw waaw
ñaar ñi ñoo xam ne ñoo liggéey ñoom kenn ki bu ñu xaar dana tabax dana ñëw pour dëkk yëpp dama ko gis
ah waaw waaw mooy mooy mooy cas yi ñu wax rek ala kulli xaal loolu moom kenn amu ci droit ki la jox xaalis pour mudaaraba amoo droit xaalis boobu di ko dévier lu dul ci ndigalam amoo droit dévier xaalis bi di ko dugal feneen lu dul ci ndigalam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw islam hadis buy tere loolu amut liñ mujj a jàng dimanche passé mooy loolu al iqaala nit ki boo jëndee dara nga dem ba mujj nga rëccu xam ne kat lii nga jënd erreur la am nga droit dellu si ci waa ji ne ko delloo ma waa ji nag moom la ñuy seet ndax moom dana am mbaaxu delloo la sa xaalis wala day bañ su ko neexee bañ bu doon ne chartoowu leen woon alxiyaar mooy seet bu ko neexee it delloo la xaalis loolu day nekk jaamu yàlla gu rëy ci moom waaye araamul nga jënd dara ba pare rëcc ñëw delloo si ko loolee araamul charte bi rek mooy amoo ci droit lu dul ñaari mbir la nga jëndoon dañ la caa nax bu am ayib wala da ngeen amoon xiyaar waaye bu dee na nga ko jënd woon ngeen dëppoo ca dara changé wu ci amoo àq ci di ko delloo lu dul mu neex ka nga xam ne moom nga doon jëflanteel wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw mu ne waaw waaw su dee ne ki nga xam ne moo doon liggéey moo saggan ba pertement am borom alal ji da koy fayee ko alalam moom kay moom lañ mujj a jàng nii mooy pertement bi am mooy dañ koy dëgg dafa indi preuve indi preuve ni dama perte indi preuve na dañ ma agressé indi preuve na nangam nangam gannaaw loolu nag ñu waat loo ko mu daal di waat loolu moom mbiru atte lay doon waaye bu dee ne xam nañ ne moom moo saggana alal ji sàmm ko nam ko waroon a sàmmi borom alal ji am na droit ne ko da may fay sama alal mi nga noonu bu doon fa ñuy waxante woon masalan da ngay gis yu bëri bu ñu def mu darab dañ naan sama alal bu ko dugal ci bu ko yéeg ak moom dex sama alal bu ko traversé ñoom àll sama alal bu ko dugal ci lépp loo xam ne day gaaw a yàqu dañ naan bu ci dugal sama alal amma loolu bu ko jalgatee ba def ko su boobaa borom alal ji am na droit ne ko fay ma sama alal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa kon mbokk mën nañ doyloo loolu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi